Euh, dañ fi ñëw ak euh, ay pexe yu bari euh, si pexe yooyu nag lu ñuy waa comité d'organisation bi waxoon dañ si bàyyi xel ñaar yoo xam ni loolu lañ gën a jiital benn bi mooy pompe bi nga xam ne Saidou Diène yàgg na ñeen ñëpp xam ngeen xàmmee ngeen la ràññee ngeen Saidou Diène si pompe boobu mu fer moo tax muy xeex yenn doomu jàngoro yi xeex yenn li ñuy wax vecteur mais ñoom dañu waxoon dañ si boolee même maanaam yi dox si suuf yi Euh, parce que fii site bi nu mu dëppoo nii euh, souvent da ngay gis xeetu mala yooyu ñuy ñuy génn si bërëb bi donc loolu moo tax ñun lépp lu luñ si lu luñ si am comme pexe Seetu Dijeen dina ko jéem a def. comité d'organisation bi aussi insisté woon na si lépp luy jëm si wàllum lekk bi ñu gën see góorgóorlu parce que souvent day am lu ñëw ay ay intoxication. donc si intoxication yooyu nag dafa laaj service d'hygiène dugg si kër yi wax ak nit ñi si wàllum euh, ni ñuy conserver par exemple ñam yi mais ñuy contrôler aussi denrées alimentaire yi xam moo tax ñuy ñuy togg euh, repas yooyu donc si loolu sax euh, service d'hygiène bu Popenguine def na si liggéey bu mucc ayib si ñetti semaines yi ba génnee foofu sax li ñuy wax ñeenti tonnes ñam yoo xam ne kenn mënu ko jëfandikoo donc mais si li ñuy ràññee si ñam yooyu mooy benn Euh, am na produits yoo xam ni boo lay gisee seen mandarga kenn mënu la wax lan lan mooy mooy aliment de baas bi c'est-à-dire dañ ko bind si kàllaama boo xam ni kenn mënu ko lire donc euh, loolu mu nekk produit yoo xam ni vraiment ay jafe-jafe la ñuy andi.